yalla dogal xeyna na nako gis mu aksi, ba mu aksé la ma jëkk def moy supprimer ko alhamdullilah rabbil alamin su ngeen gisé nak may def vidéo bi ci loola la jëm di tranquilliser di dalal xelu ñi nga xamni ñi samay bokk lañu samay xarit lañu samay soppé lañu samay am di jamm lañu sama njabot lañu ngir buñu xeeti vidéo yooyu nga xam ni nag faaw mu am ci internet bi ñu bañ ko seetaan suñu bëggee lu leen noppal ndax seen xol yi bañ a am lu cay ñu guñu gi wala buñ ko seetaanee ñu muñ ñu muñ ndax nag am na lool jarul xool daaw wala daaw jékk fa am ku fi wax ay wax ma tontu ca wax jooja moom nee naay waxi boppama xam nga genre mercenaire yooyu xaj buy baw nga wut ko rek teg ci sa balcon ku ko romb mu la mbaw mbaw genre yooyu la ba ñu ma waxee ne ma tontu na la la ma ñaan suñu borom mooy yàlla yàlla na nga mën dimbali ba ma bañ a seetaan vidéo ba alhamdulilah loolu laa ci am lu ma ca xamaat ginnaaw bi nit ñee ko wax damay bañ moom moomu mu am satisfaction ci limu am limu bëgg moom lu mënta wër xew li mënta xew moom mi ngi gis samay vidéo kon xolam a ngi dag té moom mënu la am ma xool bosam ba sama xol di ca dag li ngeen dégg bës bu né nak makoy wax ba ma mbokk mi jote yonné daw di ma laaj ci mbiram lama tontu moy li ngeen dégg makoy wax bës bu nek réew mi ñu bokk ak diiné ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk réew mi ñu bokk su dee la ñuy wax réew mi la concerné duma ko régler problème mu religion maanaam duma ko indee diine su dee social la social lañ koy régler bu dee diine la ñu indi ci diine moom moomu nag ñoo bokk réew mi foofu laa yem ak moom kon li nga xam ni moo jëm ci wàllu diine ma cay wax su cay tontu du am ma tontuwaat ko wala ma ko cay may fulla ak fayda ak maana ndax man diine jii ma bokk daal moom dafa am julli am woor am joxe zakat am dem màkka keneen ku am jeneen joo xam ne jii loolu bokk ca yaa ko moom sama yoon newu ca waaye nag sequñu mbiru diine kon lu ñuy wax ci diine soo ma ca tontoo defoo li la war man bu ma ca delloo di la joxlante ay kàddu defuma la ma war ndax man diine ji ma am man diine ji ma bokk yàlla joxoon ko muhammad rasulullahi sallallahu alayhi dafa nekk dafa ne ko buniyal islaamu ala xamsin lislaam ci juróomi ponk lañ ko def juróom yépp maa ngi cay ñett ñetti képp ko ci bàyyi benn bokkatuma ak yow diine bokkuñu même valeur kooku nga xam ni mooy tontu nee na ndax man bañ rus laa di jullit boo xam ne bii dafa am fu ma lislaam yam loo ci wax ak jëf di gor su am lu may seet am lu may sédd li wolof yi di wax naan lu xaj màcc mat mat mat war faa bàyyi ceen nga ca baatam seetaan ngeen ko ci internet bi doomi baayam la saaga ndey ne ko sa ndey moo tax gune yi dama leen koy wax bu mu leer ndax ngeen xam kii may waxal kana moo tax gune njaareem yi xam nu ñuy defee nangam taan kii wax ak man moo wax loolu te doomi baayam la ko wax kooku ne daf may tontu déggoon ngeen fi atam daloon na ci joxoon na Cheikh Ahmadou Rafahi wàllam ci naru yi Cheikh Ahmadou Rafahi doomu sëñ Fallou di imaam bu ñëpp bëgg te sopp ko joxoon na ko wàllam ci nag wa te man su ma jógee di ko tontu nag ci li muy wax te la ma wax man leer nañ ci ñi mu war a leer ci ñoom ñooñu jël ko di ko jëriñoo ak di ko jëfandikoo moom mu wax ca yeneen yi wax ma jóg di ko tontu lu may wax te su ma waxoon ci koo xam ne kii soxlawul argument bu jóge ci alquran soxlawul argument bu jóge ci hadis soxlawul xel mu rafet soxlawul yéene ju baax man kooku suma ma diko di tontu yen ñi yen may jëk jëk bi deug la nak kaddu gu ñaaw ku ko dégg ci sa mbokk wala sa njaboot wala sa xarit wala sa soppe dana la metti lolu ku xeeb saga do gor ku xeeb saga do nit ku bax parce que da dul genn ci nit gemmiñu nit ku normal waye ngeen def ko ni jëg bo xamni bi dafa jëg moy caravane ay gilem yu jiitle wala nak yu jiite wala ngeen di jaar ci biiru dëkk xaj ya miinu ñu leen ñu leen di baw day tax ngeen wàññeeku day tax ngeen su ngeen maré wacc ci dëkk ba naan day tax su ngeen amé mbokk mu dëkk ci dëkk ba ngeen ngeen ngeen ngeen bañ ko nuyu jëg ba kay day continuer yoonam ya di baw ba gisatuñ leen ñu noppi loolu mom la tubab di wax la les chiens aboient la caravane passe jaru nit yu mel nonu dañu waron ñom di saga sen nday ak sen bay lolu lañu waron say ñu yewoo suba buñu julli buñu def leneen nañu saga sen nday ak sen bay ndax ki la yar ba nga mel melokan bo ñemee genné saga diko jëmele doomu adama diko xas di ci lo xamni amo ci ben raison bu valable yow da ngaa waroon di saa yoo xëyee su sa baay dee sax ci bàmmeelam nga waroon a taxaw saaga ko bu sa ndey dee nga dem ca bàmmeelam saaga ko noonu nga waroon a def moo gën di saaga nit ñi. ñu mel noonu ndeysaan dañu am problème dañu am problème psychologique yoo xam ne yi ndeysaan dañuy gis fu ñu ko bëgg a wetti ko dañuy bëgg fu ñu ko serloo dañuy bëgg ku ñu burusu ndax li ci seen xol yi di génn loolu nag il faut pas ñu leen di may occasion déedéet. Bilai laay mujje wax ci wax jooju li ma ci jublu it mooy defal samay bokk ak samay xarit ngir ku ko ci gis bañ ko xool ku ko muñal muñal am na koo xam ni kii li wolof di wax yedd yërëma ko gën am nu nit di mel jarul nga koy topp kooku ak i nous ne boxons pas dans la même catégorie bokkuñu fu ñu juddoo bokkuñu fu ñu bokkuñu nu ñu yaroo bokkuñu niveau intellectuel bokkuñu ngor bokkuñu jom bokkuñu ak ragal yàlla kon ñooñu su fekkee ne damay wàccee sama bopp ñuy wax may wëlbatiku di ca waxaat déedéet kon danaa mere sama bopp lool du ñàkk yéen ngeen mere ma lu jëm nag ci wàllu violence dégg naa ci ñi wax nee ñu am na ci ay kàddu yu muy wax di sule ay déedéet man ay rek laa bëgg nag bu jotee violence moom su jotee moom su jotee moom ku yéex a jóg tooñ nga ma violence dong bu ci desee moom ku yéex a jóg tooñ nga ma man sama yaram daa yàgg xasan lool plus de quarante ans yoo xam ni laalewu ma kon sama yaram a ngi xasan kon ku ma gis nga bëgg violence moom te jëme ma ko moom xamal ne yow boo yéexee danga may tooñ may tooñ maa ngi koy sàkku ci bokk yi daal ku ko am ngir yàlla lu waay wax ci man ak ku mën a doon bul ma ko yónnee bul ma ko xamal loolu nag dafa jaadu maa ngi wax am na ñoo xam ni faw ñu tontu ma tontu yi danañu wuute kon nag loola amaluma importance li am importance daal mooy li may wax gëm naa ko bëgg naa ko ci nekk ku ko weddi am nga ci droit ndax weddi woon suñu boroom weddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam weddi ñeneen ñu ma gën foofu ëpp ma daraja kon faw ma am ñu ma weddi waaye ñu mel noonu daal dimbali leen ma ngir yàlla kuy wax seeni wax waxi ko feneen waaye bul ma ko wax ndax ñooñu ngir ngay man jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci Xidma production da ngay bës fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi. Xidma production la scène du mouridisme.